mi aw kupali dibu kana koli pankuŋol ni ni sikoras kapurum kalulumai europe usa canada di switzerland banjale du cham haniwaf nye nafa woro di service nu manja ye fange me wakene ye fange me jake de bonye sikoras di sukete gambia aw bacamut haniwaf waf esalawiye woto kupaali ndi bukani tambuku dewum ndi baccamam nanosan konne bonci koreas kapurum europe usa canada wala switzerland de sela yema kewye loken ndi google play store wala apple store jaat munu download supersonics money transfer app ye munu nafa woro di e boñe si koreas kapurum supersonics disofor wammi wolola di supersonics money transfer e sela yema e ban aleykum Gambia asalaamaaleykum ñu ñu seetaan tey nag doxantu nañ fii à marché Sarakunda à marché bi nga xam ne ne moom ku nekk loo xam ne loo bëgg a jënd rek fii nga koo bëgg a jëndee jigéen ak góor yëpp ah, fii la ñoo daw si marché Sarakunda ah, tey nag ñu génnoon nag pour waxtaan mbiri mbuus ah, gisoon nañ fi nag ay at yu néew at yu si gannaaw Yaaya Jammeh ki nga xam ne ex president, la mu ngi dem exil baanoon na fi lii di nga xam ne moo nekk plastic bags bags in nylon si biir dëkk bi ñu dellu gisaat ne nguur bi tamit wala war a takkadeer yi ah, gis nañ tam génnaat neen di wax ne ne bugguñoo gis kenn muy use plastique bag si biir dëkk bi ba tey ñu dugg fii biir marché Serekunda seet suñ naataango yi nga xam ne ñoo fi nekk ji jëfandikoo mbuus ñu seet naka lañ nekk di dundee jamono bi ah, si ñàkk mbuus bi ak bu ñu leen nekk di tere si jamono bi ni ma ko gisee soo la comme gars yi toppalañ na fi loo fi def maa ngi jaay jaay lan ah, maa ngi jaay yi sew di jaay kanja di jaay limon ak yooyu daal pour euh, xam nga ñun jigéen lañ Gambia moom xam nañ jigéen ñi fi ñu toll si jaboot boo liggéeylee doo am looy jox jaboot yi ndax fi boo ne school jigéen ñi la boo ne leneen jigéen ñi la ñun ñëpp jigéen lañ xam nañ lu fi xew lu fi nekk waaw. maanaam daal jigéen yi jàmbaar leen. ah ba tey na fi gis nañ benn xibaar bi nga xam ne ne gars yi ne dañ tere mbuus ah, nguur bi dafa tere mbuus képp kuñ gis mu amee mbuus ah, gars yi dinañ jëflante yow yëg nga loolu. non yëg ah, waaw maa ngi koy maa ngi koy yëg daal waaye ah, lu waa daal lu ñu wax daal loolu la war a def daal dinañ ko bàyyi wante nag mbuus na moom suñu liggéey suñu liggéey la ndax fu ne nii bu ñu amee limon si mbuus lañ koy def mu gaaw a jeex ah, bu ñu amee yii si mbuus lañ koy ah mën a def ñu mun koo jaay mu mu mu dem waaye nag ah lu waa moom lu wax moom foog ñu bàyyi ko lii nag dafa dafa fekk ne lu ñu amee la woon rek ñu koy jekkali rek waaye ñun sax fu ne nii buñ la gisee sax duñ ko dee nangoo pour ñu yuus ko sax. léegi nag lii moom fu mu leen nii xanaa ñu wut ay pot wala xëy na fiyel fu ñu koy def bu fekkee ne dinañ ko mun ñu def ko ndax lii ñun suñu liggéey la liggéey jigéen ñi la. Ah, ba tey ah, gis na ne yaa ngi frej di sa kanja yaa ngi ko def si mbuus ba pare loolu naka la la nekk di sonalee jamono bi comme yow en tant que jaaykat nga gis nañ ne sa kanja bi yaa ngi ko frej def ko si mbuus suñu teree mbuus na la la nekk di sonalee. no loolu sonal na torop torop torop torop ndax lii lu ñu war def si la ñu jaay waaye xam nga luwaa moom lu mu ne baaxul rek dañ am pour bàyyi ko waaw dinañ ko bàyyi nag waaye nag nañu sonal nag trop sax parce que lii buñ ko defu si du ñu am si luñ koy def ñu jaayitam te xam nga kanja moom il faut nga ferej ko am na fu moo toll doo ko mën a saam di te ferejuloo ko il faut nga ferej ko nga jaay ko waaw. loolu moom mel ne ne su ma jàng si sa wa kenn du jéggi luwaa. Ah, kenn du jéggi luwaa moom dëgg dëgg moom kenn du jéggi luwaa waaw kenn du ko jéggi mu luwaa lu mu wax loolu la ñuy def waaye ñun tam ne wax dëgg yàlla na amaguñ pexe nag amuñ pexe wante nag xam nga lu luñ la tere rek il nga bàyyi ko Ah, ba tey gis nañ ne wala jàng nañ ne am na ñu nekk di arrest police yi ah, si biir marché bi suñ la gisee lii di plastic bags yëg nga loolu. non yëguma loolu de. musuloo nekk ay victime musuñ laa arrest. non yëguma loolu yëguma ko déedéet. arrest suñ la tamit yëgoon naa ko déedéet. su ko yëgoon na ma wax dëgg yàlla dinaa ko baax. ah jamono bi na lan nga am pour wax ah, nguur bi lan nga leen di ñaax jamono bi pour ñu def ay solution yi nga xam ne ne si a plastic bag si jamono bi si biir Gambia. ah plastique bag bi moom xam nga man tam man su ma liggéey soriw ci lool daal xam nga sekkente ne dama ko day yuus lu bari xëy ma ne xëy naa lii ak lii waaye man tam soriw ma ci lool de fu mu nekk ni kanja bi xam nga par pot lañ dee nata nii suñ ko natee ku indi ah, li fi mbuus nii rek foofu lañ ko dee sooti wante nag fekkee ne tam indiwuloo mbuus tamit fu mu nekk ni daal loolu jaaxal nañu torop sax luñ ko war a defee daal xamuñ daal di nga am benn client bi nga xam ne dina ñëw mu ne la moom a la bugga waaye dafa bugga nga frejal ko ko léegi soo ko ko waree frejal foo ko ko war a defal xanaa ñu ut pot xanaa ñu koy nata buñ ko ferejee ko buñ ko nattee ñu koy jaayee rek ñu sotti yoo ut comme nii baag yi nii nga sotti ko fa noonu ko mën a def pipa baag yi waaw amuñu amatuñ benn pexe na bu ñu war a def te ñun tam ñi lii foofu la ñoo liggéey pour suñu jaboot yi ndax fu mu nekk nii ëpp na lu mat juróomi nit maa ngi leen ambee ku ñoo ne ma yaa booy loñ yaa booy bug yaa booy lii yaa booy laaj te doo xam daal loo war a def waaw te yow fi ngaa liggéey foofu ngay dundalee sa jaboot yi foofu ngay jox sa jaboot yi ñun jigéen lañ ni ngaa gis ne lu ñu yoree man ñemoo ma la ko war ndax man ku mel ni man na fi et puis de am naa 500 bu ma war a tegal suma jaboot yi balaa maa ñëw marché ah na fi gis naa ne yow si sa biir wax jàmbaar nga ah, te yalla la yàlla bàyyi fi ba sa kanam nga lekk sa njëriñ yi njaboot a ah, jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. noo tudd. Ah, yow lan nga fi. Ah, man shopkeeper la fii. ok yëg nga ne dañ baan mbuus fii si réewi Gambia. waaw yëg na xaaral wax si soose tu eh, lefta même fala wala ko eh, mbuuso nte mbuuso bulanoo la. alta bulanoo la. na baluwo be mbuuso bala nte mbuuso bulanoo la. because feŋol be jee men ye ko lonko toñaa toñaa to lefta masakunda daan na men na wala ko ye compagnie li samalan compagnie ko men buuso recycle la ye buuso dala fenti even developed countries like America e kam buso yusle buso to masa kuna yente e mira men sainteng e company e sama nan company men ko men buso buso recycle la dan ka buso ban kaado ko buso fenere men ko jing 21 ta kenol kaito kono jin deke ta kenol kaito kono yeyin tulor jan ta kenol kaito kono nye turun ta kenol kaito kono fa e kem buso kono oto ni be mira fɛn fɛn ye mira ye compagnie sama na compagnie ko mesi muso recycle no wala yanda kelo doko de bi ɗankam mbuso ban mbuso mbuso because ni mbuso ne ofele sang kolodo sang ne jaro kolodo sang because dinol beka ne kada ka wafi because fente fo ne company beje ka ne wafi ba nin company la company men ko men kam buso buso buso sam e ko bana sa to ko fereng because momo be ka buso to mo kada ka ka company to e ka wafi e ko sang bana fereng e ka reconcile ka ka fente men ko sin defan wal yakara ye company ko mira dan ko bane bukos don na fala be mbuso bala banko bol ben fala mbuso ka kabir ya mbuso de jang dala sufula fula fa men marso ko jang dala sa fa ko marso ko jang ko en sokata fengo be star dala sulu ko da santo mi men tango dala sulu powaro dala sulu fengo fen dala sulu ko en sokata min kala min tol sayte tan so fula dukunta fay bu don dukunta bu don dukunta ol be ko je sayin ko de fula ol be mbul say wolen talata arin dala so anda nimbuso bandau be bitade on mbiɗen économie to ni karɗoji ɓe ka karɗo fanan jiɓele comme man sakunda ya jiɓe ye compagnie lisamalan compagnie mbe buso reconcile recycle la o doron o doron len solution te buso ɓantaga ɓantan buso ɗaraja yo yo mbiramole ɗan buso ka buso ɓanta ko lefte ɗan walla andan kuma kene mbawol folo jeye e dibite o ñin ñin tuwon aman ko kosam balantade de mbe sondiga labbi ko dibite o laada ɗa bar debbi tewlo ɓe kat fendeɗa mbi karaɗa pour pour n tolde ka den tolde n tol population o so ɗen population o ma lati maintenant oto dibi tewlo yen kommira baka yaggiɓe ɓiko so ɓen tolle e gueye mbeɗa sinola gueye ne yaggueɓe ɓe luwareɗele karaɗa pour population o so oto ɗen population o ma lati maintenant debbi tewlo yakata loigne yari visite yaɓa bonde ñamen because time time time population o ɓata kam bakere ñum koñina bake oto yakata yegi loigne ya revisite ya guiɓe ni sabu loigne tonno ino moɗ moɗ moɗ moɗ moɗ moɗ moɗ moɗ fanna fano buusoñamen lefta wala fola moodi e eh, ma musa kundaye ni si akata no yo compagnie sabana compagnie mbe buso isa keno fenti wala mol nafa askelo mo be nafa ta jang askelo banko mbodi won nafa ta jang koy so fele koy so ko be ta kan fente fente fodde flo ko ko musa kene nyaw ko pawro sile dala saba ngal e eh, eh, mente lo ko sile dala saba dala saba fo dala saba fo ba jang ba nimbu so mo so don be bolale o oh, ane on bita économique ha so nkene sonde abarka bake am ite todu man maa ngi tudda Faaburama Sakho waaye guy gu réegi rek lañ ma xamee guy gi guy gu réegi te bari njëriñ loon nga fi wolkat boo gis Gambia man maay sa président wolkat muy gerte ñeebe jën yëpp man maay sa président yow lii naka la la di sonale comme den baan lii di mbuus si biir Gambia bi buur bi métti jox ma boppa buy métti because mbuus dëkkandoor la si man mbuus si suma famille la bokka kon mun naa ma ne mbuus saaxo la santa soo suñ ne dinaa génnee mbuus rek coono la si man xam nga dangay wax ne am génne lii jëlal li waaye génne lii nga toog dañ ne bukki bàyyil gestu mu ne wax si gannaaw bu mu yaa ngi dëkk si kër jàmbur war a génne luwaas sa doom yi ñu ngi war a lekka ñu ngi war a dem school yow li ngay liggéey ñu ne nga bàyyi ko foo jëm balaa loolu kay ñu jël fete sa jam ñu ñu dee moo gën because yéen a métti métti bi dee sa moo ko gën ñun lu ñoo ñaan lu ko dalee Adama Barrow ba wàcca si suuf ñun ñoo leen fa teg ku la abal botam fu ko neex ngay xool du yow fu la neex de ñoom ñun ñoo leen fa teg kon nag ñun ñoo leen abal suñ bot fu ñu neex la ñu xool du ñoom fu leen neex de lii dañ su dee suturoo understand nga mbuus bi ñun duñ ko mun a bàyyi bi ko si lañ soo suturoo galaas si mbuus lañ ko dee takka boo jogee ko si géej gi ñëw galaas ngay jënda fan lañ ko def si mbuus soo walee jën si mbuus lañ koy jën soo soow si mbuus lañ ko dee def diwlin si mbuus lañ ko dee def dege si mbuus lañ ko dee ak yu ma la mënuta limal yaa ngi dégg soo ñun lu ñoo ñaan nguur gi buñ ñu génnalee mbuus nañu tegal leneen waaye eh, génneel ñu mbuus rek toog leen ñoom ñu xëy dem office du noonu la di yal na ma yàlla dundal dundal la la waaye du yal na ma yàlla dundal reyal la du loolu de du loolu de loolu ñu génne leen foofu suñuy liggéeykat lañ li ñu wax dëgg lañ waaye dañ koy seet nu mu yombee ñu defee ko noonu understand nga taw dafa fekkoon bathroom toy, because falan lañ dee sangu norak nawet taw ñew na taw di sangu way baangi toy kon nag ñoom war nañu xelaat demba nakala, la ñu ñew si tey bala ñoo wax on yaa ngi understand le bi kat soko dimbalé wut bay ko mu li ko si jamam de sujeer lu mu xat xat xat ñu sànni fa xorom sujeer bi du fess ñamar ñamar ba ñu ne xorom xejju do ko ah? fu mu jaar ñu fa xorom dana fa ah dafa mel ni man li ma jàng euh, nguur bi dafa ñëw pour sonal baadoole. a ah, falan jëm de falan jëm because Adama Barrow président déglu rek Adama Barrow président ñu nag moom ñoo doon toog di naan ataaya xam na suñ feebar. yaa jame xamuñu waaye moom xam nañu civilien na comme ñun ñoo ko teg place bi jox ko dénka ko suñu kaddu dénka ko suñuy alal kon nag suñu amee feebar moom la ñoo wax député toog. ñu ñëpp duñ mun a nekka li day jànga Serekunda primary school rek su amee si nguur gi liggéey budget bi day daanu ñëpp duñ mun a toog si office ñii dañoo nekk si géej gi ñii nekk si tefes bi ñii nekk si marché bi ñii nekk si béy bi ñii nekk si sàmm bi soo wàccee office nga fekk a jën cuu diwtiir bu am jën fan la jógee. kon Adama Barrow déglul waa Market Serekunda Market community ñoo la nekk di oote ñu ngi laa ñaan di la ñaax nga déglu leen ba pare nga tontu leen nu mu gën a gaawee si wàllum ah, ban mbuus bi si réewi Gambie parce que mu ne moom lii dafa jàngane ah, dafa ñëw pour sonal leen ñoom saka sa surtout ñoom doole yi nga xam ne seen loxo jotut gannaaw parce que ah, nit ñi bokkuñ loxo moom loolu la wax mu guy bu rëy nu mu ne nu guy bu rëy te bari njëriñ. duñ reere duñ ndeewoo suñ ndeewoo duñ añ fii different foo people moo nekk Gambia fi am na ki nga xam ne am na añ am na ndeewoo am na añ am na reer am na ki nga xam ne am na ndeewoo am na añ amul reer am na ki nga xam ne ndeewoo rek la am am na ki nga xam ne suma maas la dundi ganaar su kisi-kisiwul suuf du lekka kooku su nekkoon na toog fan la jëm doy na waar soo yal nañu yàlla dimbale waxal leen nguur gi ne suñ nguur la nguuri civilien la nañ ñu dimbale te yàlla tax yaa ngi dégg nañ ñu dimbale te yàlla tax de ñun ay baadoolo lañ am na ñu toog si office bi fale gis nga mbuus yi lañ doon jaay fayal leen school fees bañ mun a nekk dara yaa nge dégg xale yi ndaw yi ñu jóg tamit mbuus yi la ñooy jaay fayal leen school ñu fekke leen si office bi gis nga dégg lu béy bi ñuul bi lekka béy bu weex bi tamit loolu la lekka de wasalaam. Musumeta Mane. Musumeta Mane. ike mu ne kijang. Mbo wafiro le jang. Njende njayo lo mumfanati. ha a ya kalamtale mbuus kuwo ñi ya ban le jang gambia kono ha nga kalamtale bari nga na kalamutu woni mbitema a meta kabirin ya jame jamanu ya fonon ko mbuso ban jang bari a ketan bulu kule to ko menan ka koleta bakele ada diminta bakele folo folo kewlu woltamu je domandinte musolu wolle kole ya dasoto katambe cewolla bawo fos ndol musolu mbe jee siti lele yala ye jii mbuuso ñiŋ niŋ ke pooto kono i ye a naati naŋ galaso poto bebula bula noo le firijo kono fo poti nani poti lulu yale wo te kee kodi pura ke galaso ti ada se mba ko letol quand même fo comme ka jee kabo kono ke mi ala wo man jaati kende ya sabatindi kaatu ko nte min kabo la courant bente la dindi a ya dindiŋol ye a kocukocu ye jee ka ite ye ne min ala courant men bente la wo le beetamuta la woto wo kabo ka jee kono wo wo manke soli sonote pour jata kende ala bundala ni nata bowoto diwilino kabo sa embe te momento to mobe ajele kabatielu men yalon ko ni e jiomin evian kabo ni e jiomin doli ka tombon ya samba ni mbali tel nata ya samba mbali to ko tu kware ya feje sa musol men kataje ni tata ye kabol tombon ya ku faka ka koyi fa bu ka koyi ntolomon fel lo woto ni o kabo se yanati ye dulu no kya kono ya sambe ye tabiro kala dimba ya domo kuran wala sabato wala woti banko ka ya moy o mo fulati ni na to boko do ka tege min dege mba kala mun kono ka dege te keno la kayto kono dege ni aka kayto kono abe faralale dege fas keno mbuso dammala kono ay tanu fonde wo munna kole ya bunda te yam nyimenda do hato nyinyi niŋ ye meŋ ta luhatoo ta a maŋ janfa fanna a tara misaalu fee ali maŋ koronto niŋ ye ke ñiŋ buusoo kono ya moro moro janni jaŋ niŋ be bala jaŋ fo be futal jaŋ abe a sa ni wote le bonda fente wo bulu itala la ndawo loomu keme ti i ye ñewo saŋ se i ye jaboo saŋ meŋ ta lokato ye a saw be ye boŋ niŋ bulu bande nyanta kembo kemboo saŋ i be a ne la o bee mu dimbaa te le bataali niŋ i naata ñiŋ yo fana saŋ ya ye a ke mbuuso i ye a la moolu ye kayito kono ɓawo ñimmu kaytolde ni en sa yaka kayto kono janni ɓe ɓola amari kunto aɓe bon sa itaman bono i bonota kodi ñeetiyella ñawo ni turlal nata ye ñawo tu ñi ñesinande woñi ni en keyin kayto kono ten ten nameta janni tawa ton kajel yajel a ah, kenya men kwajel ni enye otu anya hana ima tu anyi njare yake kaito kono jani be utule yajel abebe farale sako ni enye ote ya kufa sene ya tu ya ke mbuso kono wabebe farale tani la dimba nyanta kabalu munela mm. ndasi memfono ndo wala nyinti ko alinga mansa kunda dani ye yanfa lillahi wa rasul ye musolu jube e kana musolu kumbondi e kana gambia dingol kumbondi ye koma jube yamel mbuso ala toro ntoliyole na katuko mafo mbusu ba mbusu wara ma ba woti nanu mofo bar hanu fao jannam bar tubabudu mbusu wara ma ba niye bago san aka tara mbusole kono aduwa bagol ni mbusole kana jang niye bayo san aka bo mbusole kono aduwa yo ni mbusole kana jang tubabudu du wala mbuso siyata jam busote ni ndandata senegal wala mbuso siyata jam busote wara wala molu jata kende abunda menu martela do ku bunda ma ya control nyameng memu mutol la do kote ya ni membe mbusu control la o nyama fuwarol nooma ntolu mu fuwarol lete nna baluwo kabo janne doolu be luwaaso la dimbaya bee bulu niŋ fano kete lonki di dindiŋol la karambu joo maŋ na buku soŋo man na uniforme joo maŋ na samato man na lungo lung nin fano kete ko yo di diŋo la aduŋ ite la soto be damen ibe mbuso feŋo waafi la i be bor la ko suŋo me ye a dimi na wara faŋ ñoŋ gambiya diŋol niŋ naata ila fengo me ya tara mbuso kono a maŋ ke bii sito ti fo lookuŋ kiliŋ sito i ka ate ka fara yela la feŋo boŋ ye mbuso samba wo mu jutu ni ti niŋ a je i be kela ñaato ibe be kela palaso to fuwarolu mennu be kon tolu mbe koma moo beeta siinoo la ofisoo kono mbiyata sinol office o kono momoɓe jan demaɓe jan mo jamaɓe jan taɗen daman karan bar mo jama jan wol karantale bar office o kono place o tijeyi moɓe si sino dame ala en mankanya fo dole sitara ba dala dole yetara mar mbar dole yetara e office o kono dole yetara fanna dola wara ko nin ɓe ñoda handi la gambia ɓe ño makoy be dama la place o to ga respect nga buña nga ño buña ga ñola ñanto ɗila ɗin ko sabati bawo ni tata office kono ye kan siti ye kala soti ni tata ya kisi koso ya kisi koso me ya anata mende ya ay le abule bulele jibo kono hanin karo man fa la ya soto ni membe jila ni dol sita jang mbe men do malam ma soto do ko manke dimbabe ko ma luwas jo beje lonke beje mbe na min tole fondinkewol i koman sondo kola pala sita jam fondinkewol sido ko ke danu amen office o kono ñinni men bebe lor nge be mu dinkeri wallete aɗu ñinni men bebe lor nge mu sutiyelle mu beeti sa ni musuñol li dimbayal ini musuñol anila dimbayalu sa ñunu men bebe je be musuñol to komen lila dimbayal ni wol dol ko ibita office o kono pour ye do ko keje muna be keno le bang ate keno la wara fo do si balu jang do e balu jang do fana e balu jang ñun do be tiatu la do be ñe la do be kan la do be jibe la nabaluñol man kiliŋ ntolu musolu mbe ayisi de la la mbaalo e la ndiŋolu kunto i be a waafila mbe galaso de la la mbaalo le kunto i be a mbe ebelu kela mbe karotolu fereji la saayiŋ niŋ ye ntolu balandiwo bee ntolu musolu mbe kela ñaadi le na dimbaalu be kela ñaadi le aduŋ wolu la karaŋo wo le mu ntolu la soomati aduŋ ntolu la yindo jo wolla la saayiŋ bi taa Famata Kamara. Famata Kamara, what are you doing here? Me, I'm selling this in the market. I'm selling orum, salt, salt. Mm. and this ogiri. This ogiri. Mm. Uh, are you aware that the government have banned plastic back here in the Gambia? I hear that. So what? Eh, yeah, we think that because me, I'm surviving in in this plastic. You see. this ogiri if i don have plastic i cannot sell it if you leave it like this the flies will shit on it and people cannot buy it if people buy it they will go and if you give people diarrhea unless to protect it only this plastic you see. I even seen here cow candor farmata. So do you normally tie that cow candor in the plastic bag? Yes, I used to put it in the plastic bag. But now there is no plastic. I leave it like that. The fly is to shit shit on it, you see. And when the fly shit shit on the cow kanda, the people cannot buy it, the people go. Since this morning, this cow kanda is here. People don't buy it because they see uh, uh, shit, fly shit there. So you feel like it's not hygiene? Eh? It's hygiene. What impact does it bring to your business? What? What impacts did it bring to your business? That English, <laughs> I know a It affects the business. You see, it affects us. Since this morning, I never sell rich. I don't sell like hundred dollars here. Since this morning, I'm selling only fifty dollars here. I, I sell. Yes, because I am afraid. I'm afraid. Uh, we landed. Uh, the police are arresting people here in the market. Me, I never see police arresting them. I only hear rumors. They say they will catch if they catch with plastic. But I never see police arrest somebody. Mm -hmm. I'm not lying. What should the government do as they ban plastic bags here in the Gambia? What should you think the government should do? Eh, me, I don't know that. You see? You don't have any suggestion the government should do? The government talk to them because we are surviving under this plastic. Mm. That's all you want to say to the government? We are pleading to the government to talk to the police to leave us for this plastic because we are surviving under this plastic. Mm-hmm. Uh, thank you, Farmer Kama. Yolo fide. Ah, affaire Mboussoube la len You laaj. Yo no man Fatou faat Fatou Diallo yow loo fi dee def. man dema dee jaay poobar dama takka si mbuus dege dama takka si mbuus wonjong dama takka si mbuus te saa diwli dema natt ma def ko si mbuus diwtir damay natt ma def ko si mbuus loolu mooy suma business bi ñaan na nguur bi ñu baalal ni ñu seeti naka la baalal leen ni mbuus yi. kon yooyu yëg nga ne dañ tere mbuus si biir réew mi. waaw dégg naa ko. tere nako ko police yi na fi jël ñaar carton ki boy bi yobbu ko mbuss dégg na ko den ko tere legi ana ngeen set rek naka xalen dimbalé borom njaboot parce que mbuss dafa am njariñ mbu bari parce que léegi so jaayee dégg soo amuloo mbuusu foo ko defee so jaayé diwtir su nit indi lo butel foo ko natee nga defal ko legi ngeen ñaan nguur bi ngir yenent bi ñu set naka la ñu balal nit ñi wala ñu indi nit remplacer mbuss fu eh, liggéey loolu le ñaan yéen wasalaam loolu rek laa war a si yéen. ah dégg ngeen kooku di ah, Famata moom mu ne moom mu ngi ñaan nguur bi moom moom daal amul dara lu mu mu ne mu ñaan nguur bi ne moom li mu lim noonu poobar tabaate ak daxaar ak yim taka noonu kaani ak lii di dege ak diwlin ak diwtiir mu ne moom si mbuus yëpp la ko dee def parce que moom borom njaboot la suñu waree tere lii di mbuus moom de jaaxle na lool wala nguur bi su demee ba métti ba métti lool nañ indi yeneen solution yi nga xam ne dina replace lii di mbuus. tudd Ndiasse Mbaye ah Ndiassa Mbaye nga tudda yow loo fii def marché Sarakunda. man maa ngi jaay si marché bi. da nga fi dee jaay. fi laay jaay ah, nga ne dañ di plastic bags. waaw ah, yëg naa ko waaye euh, before loolu damay jéggulu si li may jéggulu mooy samay kilifa ñoo fi ne bëgg nu maa jël amlo sax waaye man dafa am lu ma metti loolu la bëgg na euh, leerlu ba pare bala ma dugg si mbuusi. mooy lan. dama bëgg a laaj ndax am nañ ñun marché bi fii ndax am ku ñu loolu bëgg naa koo xam bu fekkee am na mu ñëw présenté wu ban xam ko waaw man loolu laa bëgg na xam ba pare. waaw gisoon nañ fi seen chairman bi nga xam ne moom waxtaane ñoom moom ah, moom tamit mu waa ah, li nga xam ne ne naxaru na ko li nga xam ne baan mbuus la si réewi Gambie comme tey loolu moo ñu fi indi ah, pour waxtaan ak communauté bi te gis nañ ko te moom tam wax nañu tànkaa mi si nekk di jël pour dimbala lii di Serekunda community nekkul community Serekunda rek mu ne community Gambie yëpp moom mu ngi siy taxaw parce que mu ngi am kool fu nekk ñëpp ñu ngi koo kool pour mu seet yan tànka la mun a jël te mu ne moom bindal na ay benn lettre bi nga xam ne ne xaar ñuñu pour ñu tontu ko nu mu gën a gaawee ak lala ci ah, nga bëgg a waxaat. waaw xam nga alxuraan dani wa ma kunna mu'assibina hatta nab'asa rasula yàlla dani ñun duñ buugal yàlla mi bind jaam ñi nee na duñ buugal benn xeet lu dul danoo yónnee ndaw mu dem informer leen ba pare kon ñun bëgg nañ bëgguñu rek ñit xëy xëy dal suñ kaw bëgg nañ bu ñu amee njiit bu fekkee am na loo xam dafa jóge si kaw ñu war ko indi si marché bi war nanoo wër marché bi wax ko ñëpp ni mbuus bi bëggatuñu koo gis waaye mënuñoo d'accord euh, tey ñu xëy ñëw ñëw si sama palaas jàpp ma dem ak yow tuuti nga joxe xaalis ñu demaat si koñ bi ne loolu lañ bëgg mu deñ dañoo bëgg buñ ko teree nan ko teree complètement mu jeex mënuñu ko ñu bàyyi nit ñu yuus ko man loolu moo metti ba gën na daal ñu am njiit loo xam ni bu nu waree ñëw Serekunda euh, tey dina bu xëyee dina ñëw wax ñu lu leer ndax buñ jàppee kii na mel ni man lan jàpp bu jàppee kee mel ni kii lan jàpp waaye mënuñu jël par kenn di bàyyi ñeneen ñi te mbuus yi jógul si marché bi mbuus yi moom jógul si marché bu fekkee dañ koo tere nan ko tere complètement ñëpp bàyyi ko mënuñu ko ñu bàyyi ñëpp liggéey man daal foofu dong laa doon waxee bëgg naa tamit njiit li fii mu ànd ak ñun ñun ñëpp ñu def benn ndax mbooloo mooy doole ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay sun diine loolu la ñu digal kon laal lu ko luñ tos si kenn nan tos ñëpp man daal loolu laa bëgg ñu nekk benn si la ni mën a xeexee li ni xeex waaye bu fekkee bon jàppee kii man ma ñëw reetaan yow daal da nga ne ne ah gars balaa ñoo jël li di ko wax wala di ko def si seen kaw dañ leen ko waroon a wax balaa bés bi lii di am nii waaw loolu laa bëgg ñu wax ko xëy na ñëpp mënuñoo dem si kaw waaye kii ñu toogal fii na dem information bi mu andil ñu ko teg ko si taabal bi ni ñu suba suba alxamis bëgguñu kenn amee bu sa place. waaw dégg la comme li nga wax am na solo trop te li nga yokk noonu am na solo waaye ki nga dendoor nii moom tam wax na lu mel noonu mu ne moom daal war nañoo sensitise loolu moo nekk sensitise si kàllaama angale jàngal ni ñi lu tax ñuy tereel lii wax wax ak nit ñi askan bi dinañ tereel lii si weer bi si weer nangam si weer nangam dinañ tereel lii wala lii di mbuus la wala lii ñoo xam lu ñu war a tere ñu jàngale waaye comme ñi ne comme ko wax ah, pare te li nga wa amna solo torop ñi ne lo lo loo ñit daal dal daal ah, tuutiw loo si yokk rek kene dina si njëriñu wala mu xamal ko dara ah, jef si mo alfa kamarante ike mun a kijang serakuna marché to te mu wafir te nu sante ke ba min amot tan be wala timol to nte lafta ka min yitande man la bi bi bi bi nga polisol jele ne nata e ka mol la bagasol ta anen busolte so kabiri nga woje musol min nata nya folo folo ye ɲɛ bɛ ɲini na nka i e ko teta ta kɛrɛnw fe se kɔni e wo na ta ye ɲɛw fe nko tɛ ta kɛrɛnw nafɛ na tat wona e ta ye fɛn kɔ jabo fe nko tɛ ta kɛrɛnw nafɛ na a ko fɔ i dalta k'a kenu no nko hani nko ye n busol ban de a ko wo be koliyal de nko a sila a jiben de sila ɲeni laftalen ŋa doko keɓan fo ye laftalen ŋa siso kono be jakalta o wato len tata ŋa n comme ñing fenko comité ya fo ñamin na nga ke fraudol ti comme drogo ka fenke ñamin na nga ke wo ñalem al ya fraud ha nga fraud ando ñin tembe wala be keren sere kundaja dawo da ye ja ay mbuso do konde jang comme muso ya fo ñamin e, e ka ke fraudol e bo ka hañi ka fentinde son kam mbe min dane mbe min fenke kan adam baro ya ay moldema ala nin kilay wasalam adama baro ya kumo a kuŋo ñiñatale ko aliyama aliyema koy bake bake parce que ɓe bata kan assalamu aleykum waaleykum salam itto ɗum nte tomu baba siselete baba sise ite ike muni ke jang sere kuna marché to nka bakasi mesendiŋ le waaf jang yamoy le ye buno musol ban le jang gambia kono kabire ye moy ye ye ye, ye, ye mune yemune jejeto yemune karan woto aɓe batanti kan ñaari uh, ah, a ketañin ni kuya bati katum serkunna marché o 94 eh, lentenata jang ka jang start pour ka do kuko ke jang 1994 1994 yalo manke biti kodi yo wokono birin nata janken ka serkunda marché o ala ni kuya nene bukaje hanna tan nun kelole banjunu serkunda marcho o nena niyo buka kuya foni yambuso la ko ban katumo people jolle kare balu mbuso nyinna ani dimba jolle kare balu mbuso nyinna wala shada dina membu ke balu mbuso nyinna wo ketanyin ni ku ya mbe mansha kunda dan la pu ye fero fere bije mbuso nyinna kuwo eh je nka mbuso yushe nka balu wala keje kam balu je na dindul bu kabaluje andun hanna tan nun nara ni marso kono jang niya juuti be jola nka soto ñi marché to jang ya fam yaale juti ka jojanne jonkon ka jojanne ba saim fele akita ñen kole a kubati a shada fo eh, tili saba konto tile mbukan jalamuto mbukan jalamuto no andu hannata nun kamato ta me muta e kammini min ne walla eta private kamoto ya fam yaale o kitan ñen kole a kubati ñin eh, marché kono jang woto kunnan na baluwolo be den ñim mbusola ni man pare mbeke ke bandiyo to sain sain sain ten andum bandiya aman bete ya fote ba dalla jumala ken be ke kam bandiyote kadu nim polisol nata e koy ben tel na e fonkon e busola ko kan andu na dimbal na, na musol bi jele na dindun bi jele na family tomal bi je mun ka jowolto ya fam yal so wo be ntella mbusoñi na ko ken iba fulala ko kom kon kana je i kana tremo labar fo ko kabula ko abe kole ala kadu ite balunola la ha wakita na kole yakoti abaraka tuda salimatu ba salimatu yo lan nga fi uh, man ice la ice nga day jaay si biir marché ah yeg nga ne ah, mbuus bi dañ ko ban ci bi rewi Gambia. yeg naa ko ma wax pël wala ma wax olof. ma wax pël. mi eh, nani mbuusu be ɓe di ka marché ɗo mais ɗum ɗon arrangame menen ko ice men yeta modi boɓe amen ɓen ala capacité min ɓooyi yeeyde ice first time ko butel men yeeyeno mom lumo sibir kalama pol munemom jaykati si bir mom dinen ko first time ko butel me yeeno min yeeyi butel wonjo men daari men tawi ɗum ɗon ala cellal an a yara e goɗɗo yara goɗɗo yara nawnaji no ɗuure naɓa ka galle antuga wata lawɓe sukaɓe ɓe lawɓata laaɓa joni noon ɗi o joni joni kam min arti ka mbuusu ice min tawi ko mbuusu ice on ɓuuri moƴƴude min sikkude wona koye mbuusu o e ice o e ɗo ɗum ɗo wawata wadde goɗɗo goɗɗum joni wano exemple o liƴƴi ni si a addi unugol ka marché uno wata wadde ɗo liƴƴi o inna o unay ɗo liƴƴi ɗin cooƴi jooɗo e mum beeba ko bee waɗa ka nder mbuusu o buuma si a ari unugol jinjer di sem kala ko arɗa unugol ko bee waɗa joni ndaari wona ottama ɗo ndaar cooƴiɗi no jooɗi ɗo andi so tawi woni mbusu hino nder ɗo mhm. nawnaare wata memde ɗum ɗo ka minen komin torto laamugo yo ɓe accan men min waawa yeeyde e mi wawa gollitude mbuusuji to sokuji ɗi mais innali mbuusuji janni ɗi because e sukkar ko e nder mbusu arata e farine ko e nder mbusu arata e e meew ko e nder mbusu arata ɗin ɗon busuji fof kondanaka joni ko ɗi busuji menen ayso komin yeyata konko ɗum ɗon ɓe faala kondanude télé menen ɗo fop ko busu men gollitata menen ka marché ga menen komin tori laamu ngu taw taw taɓe ndaaru condition maɓɓe o minen condition amen moƴƴa min mhm. fof min wawa tawonde place goto yoɓe accumen min wawa yangade min yangano ɓiɓɓe amen ɓe min wona ka dewle amen ko ɗum ɗon haray mi tori laamu ngu ko bus ay ko ɗum ɗon wawa min arrangeude sa inni a condana yo bus ɗo haray ɗum ɗo moƴƴali menen min tampi moƴƴa noon a fotta e, e a fotta e police ɓe ɓe hibba ma ɓe tufa ɓe hibba heccanki ko jiwngo ngomi fotti ka yaasi ɗo himo jogii ndiyam ɓe tufi ndiyam makko tan ɓe hebbi ɗan min mi dogi polici ñoodef lol polici def lol noon man ma daw man ma daw because dañ dee jàpp rek bën na sotti ñoom lijjante ñu yow sa condition xamuñu yow la naka nga nekkee sa kër ñoom daal luñ leen wax rek jo kamɓe ko ɓe haalane ɓe kon daa ko ɓe hibbutu ko ɗum ɗon kam ɓe mbuson menen komin waɗi aaye mbusu mbuson koye koyen kondano te mbuson si tawi ɓe fala wadde aaye gonga gonga kam mbusu natta ɗon ko ɗon ko toon taw ɓe duwa contrôle taw because mene mi wata sodde mbusu mi yata leydi wondi gomin soda mbusu kam nde leydi ɗon mi sotta mbusu joni kam mbusu yiɗi rewata ɗon ko ɗon awa ɓe duwa kondano de to ɗum ɗon fof komin toriɓe yooɓe yurume men ɓe walla men ɓe ɓe honno koɓe accita hakkille amen yimɓe ɓen yeema sa inni afrique ɗo sa inni a itta mbusu tun hara tampini yimɓe ɓen ko ɗum ɗon marno komi wolaga pap lo fi def man Serekunda laay jaay fi ni ci marché bi. ya jaay fi ci boutique bi. waaw waaw. Ah, mba yeug nga ne ah, dañ ban ah, li di plastique bag wala mbuus ci bir rew mi. waaw lool mom deugal bo gisé fani yeb gaay ñoo ngi contrôle ci marché yek ci outside yi di gene mbuus yi ñu ne ñu bàyyi mbuus waye comme like ñun ni ñuy dundé ni ci Afrique fi boy set bu ñuy dundé 100 95 yi mbuus la lay jigen bi taka ice si lay taka ice jigen bi denc jeun si lay denc jeun ba pare man len la mënul understand ñun mbuus yu ndaw yu ñu yor neew di ci sutulu gaay ñu ne ñun bayiko da boy set li liy Europe lepp muy mbuba muy malo muy vermicelle lepp mbuus lay ñew ba ci cigin bi ci mbuus la koy def te mbuus yoy ño gëna graw ko mbuus yi ñi ay kon man affaire bi man damay laaj lan mo xew ban ñuy ay ñun mbuus yu ndaw yi ñuy use comme ñun lay sa yeneen mbuss yu magi sa man nañ ko ay lo dëgg la comme li ñuy bañ mom ñu ne baaw ci environnement waye mbuss yu ndaw yi nga xamni dañ ci sutur di ci tag ay poobar ak yoy ndax tay da ngay gis jigen bu ñew marché mo la jaay ma dege amuloo dege lo fo def dege day dem fay ben keuyit wala ben mbuss ñëw lay defal ma ci dege dege wom nit mbuss wom nit mën ci tabli ni mu am TV mu am li sori mu am fever bom nonu TV fever bo bu gën yobbo kërëm domi lek ko mën am loolu ba ji school yi tey ba bàyyi xel am na jigéen ñoo amuñu doole pour jënd bool ebe bii ñu def si mbuus dañuy dem ci aw awsaad yi mbuus yu boole ebe yi ñu sànni ñu fargo yóbboo school yi di si defal seen xale yi ndax amuñu doole pour jënd bool bi bool bi 225 wala 200 am ñoo amuñu loolu. mu nekk bool yu weex yi ñu dee def si xew yi wala lan. léegi danga ma bëgg a wax ne am na ñoo xam ne ne ah, comme ay jaaykat leen waaye duñ dem ah, jëndal lii di bool yooyu waaye dañoo am pour for bool yooyu di ko raxas ah, jox ko ñeneen ñi di di si leeka jaay waa jaaykati ebe yi. dama comme laaj tey kii war a jënd bool ebe amul lu mu jënde tey mën na dajale bool yooyu yu ebe yooyu na ñu yus ba pare dem yóbbu ko raxas ko di ci defal xale yi wala mu defal ci ko am ni day jënd ebe te xamul réel yi ba xam jënd na bool yooyu déet. wala dal li xé dal problem problème la ñuy lat rek bu ñu démé sét ba am dal ñun ko def dal mo gën man lola halat, ñu xol benen solution dal waye bi mom metti na lool léegi ñom buñ wéxé né né ne dañ ko war mbuusi yi nga lim nonu euh, wala mbuus nga xamné dañ ci def tamate yi di yu sew yi nga wo nonu ndax euh, wax nañ leen lan mo tax ñuy ban lolu waaw lool mo wax na ko di wax ñun ñom ñu né baaxu si environnement bi baaxu si géej comme climate bi nu muy demee nii suuf seeg yooyu noonu waaye man li ma d'accord man gëm ko bu fekkee dañuy aaye mbuus total yi yëpp nañ ko aay ndax booy seet maalo yi sukkur yi li di ganaar lii di ver vermicelle lépp mbuus lay ñëw te mbuus yooyu ñoo gën a bon te booy seet mbuus yi ndee yuus ñun bu yàggee si naaj bi naaj bi mën na ko lakk waaye mbuusu vermicelle mbuusu cikin loolu mën am foofu ñaata yées du dee seey ba pare ñoom loolu ñoo ko bàyyi mu ngi si dëkk bi ñu ñu kontaan suñu bos man loolu daal moo ma jaaxal daal lay laaj ba xam daal loolu naka la demee ñun doon amul doole wala ñooñu ñu am doole bu nga xam ne daal leen bàyyi daal pour ñu mën a andi loolu ñu aayuñ suñu bos. Ah, ba tey yan jafe-jafe la la indil sa biir njaay bi nga ne di def nii. a ah, njaay moom dina indi jafe-jafe bu bare ndax booy seet ay powar ay yu bari ay diwliñ yooyu doo am foo natt ndax client day ñëw sax doo am right pour nattal ko si foofu noonu ndax mën nga ko natt ñu yóbbu la sonal la sonal bu am du ko jar waaw. ba wut five dollars yi ñu la fay ko five thousand da ngay daw ndax doole bi am doole boo fay five thousand ba amut loolu tax daal doy na war daal soxna si daal ma ngi noonu daal waaye xëy na yàlla duñ bàyyi daal xëy na yàlla dinañ wutal leneen lu nga xam ne daal daañu ci mën a jàpp waaw ndax booy seet Afrique fan yi passé booy yi yaa ngi dem ci gaal yi du dugg ci lu nekk ndax ma ñu liggéey suñu réew ndax booy liggéey sa réew na lay di sob di la sonal te li ngay am du dori tey fii di Gambie di feneen boo xëyee am 100 dalasi yaa ngi dégg sa 50 dalasi boobu noonu yaa government bi yéen a koy bokk ci fay taxe ci fay leneen ak leneen ak leneen boo demee ba 50 dalasi ba mën a doog am nag kon léegi naka ngay def boo gisee gaal da nga ciy dem. maanaam comme li ma jàng si li nga wax noonu dafa mel ni comme fii euh, situation bi nu mel fii nii moo tax xale yu góor yi métti du fi nekk jafe-jafe ak situation bi nu mu mel dafa jafe ak ñoom loolu moo tax gars di xar euh, dem ci biir gaal bi baaguwe li di yooni gannaaw bi jël yooni suuf bi pour dem daan seen doole foofu moo leen gënal ñu toog fii ci biir réew mi daan seen doole jàng naa si li nga wax comme nga war a liggéey nga war a jël li nga liggéey beneen xaaj li liggéey nga war koo séedoo government bi loolu dina métti lool euh, li ma jàng si yoon li nga wax nonu ndax wa lolou ma fa am mom nah, da boy set tay marché bi ni lepp du fri yaa fay luwaas yaa fay juuti wa lansin dañuy ñëw jiyaare dañuy ñëw yooyu yëpp koy amé ci li ngay fartaan ngay am pour man ko bokk ak wa lo ngay farta tay PO bag bi ni nga war ci ben saaku malu profit bi nga doon am dem na ci pewo bag bi ma dafa am dara manam ban bus bi daf leen nekk di sonal. ah loolu mo amna mom ban bus mom sonal nañu lool ku wax diga deug rek te yalla tax loolu mo amna sonal nañu lool. ba gis nañ ne ah, police yaa arrest nit ñi si walum ah, li di plastic bag si ñu nekk di li ni ndax yow mus nañ la arrest si mbiri plastic bag. wa loolu moom yalla moy ji sutural ko deug yalla ken masuk ma arrest si loolu noonu ndax man damay dund nu nga xamne bu government ay damay damay bay na nguur ken do mom metti metti moy sunu kilifa fii nii bu ne ay len dara da nga wara bayyi bàyyi bala ñu laa yaaxal leneen lu nga am dal moy lolu mom lay wax suma gaay ñepp di gay ñi dund ci mbuus comme que solution mënul am nan ko bayyi dal ba yalla def leneen waye ñu yóbbu la taaj la ben ben place nga yenn bo fanan ñew bil la ngay dem code di ñew bala code bi jeex ñu fay la ay 50000 ay 25000 ta amuloko problème la lay jural nga bàyyi ko moo gën. kon nga and ak loi bi li wax rek. waaw lool moy right nga and ak bi dal li wax dal abate ah, ban solution nga foog ne government bi lool lañ wara def si li di ah, plastic bags. solution bu government bi wara def mom manu ñu lek wax da ñom ñoo ñu jang ñoo ñu gëna xam seen government ni muy doxé ñom ñoo wara xol nan la wara dimbalé askan mom, oyof seen lox waay solution mom ñom ñoo ñu ko gëna xam waaw. Ah, jërëjëf ah, gars yi ñu ngi ko seetaan kii di ah, jaaykat la moom moom am kantinam la am mu ne daal ñàkk mbuus bi dafa indi jafe-jafe lool si njaayam bi parce que di nga gis client bi nga xam ne dafay ñëw indi mu ne moom diwlin la bëgg amul fu mu koy def dina ko jaral mu dem dellu noonu ci kër bi parce que ñeneen ni sax dinañ dem sax bay for mbuus si suuf bi nga xam ne baaxut te mbuus boobu am mbuus boobu mun naa amaale feebar bi nga xam ne ne ki nga xam ne ne mooy jëndakat bi mu daal di fa def diwlin bi mu dem yóbbu ko si njabootam yi wàll ah, njabootam tudde na feebar bi nga xam ne mooy TB bi nga xam ne dafa gaaw a waale lool mu ne loolu dafa garaaw government bi dafa war a ut solution bu gaaw parce que ñoom ñoo leen gën a ah, jàng seen ñoo gën a naaj seen xam-xam moo gën a naaj ci si lii nañ ut benn solution bi nga xam ne dañ koo def waaye du baan buus parce que du leen mu ngi leen di lor lool saka ñoom jaaykat yi fii biir marché Serekunda yaa fay ulija ñanku police wala uh, um, um, masa kunda akone bukan kukata uh, use di uh, plastic bag uh, mbuse ujanjam eje eh, ñam kone bukan kukata enomen wende mbuso yo, yo wane gala ni au comme awa business woman dede masa sera kunda ban aw um, kano na pe mbuse na kunganu kan wana gala ni to gala no gala mfang parce que umbuso wa fa sa fa kumbuso glace fang ul jano men ya sipa boje pop di karom ne endai solas tupo pangale ni jibar ja glas pangale no lifang mo kan musa ko len ko ten ko balang mam ko no meo ko ran ko kato bukana mam kuno men musa parce que musa bukana ko sole solo fang no men jaru musa ore ma jowre ingon tingaro manin sam le jaw foki kan ko musa ra mani ko ken inen maregen um, comme menu la men jilop me comme mbuse ku rege ku balam balam ko men ku use wo a mus bu bukan ko la uh, ku police ko kuna arrest bukan uh, ah, pour yifi mbuse uyu nenu are nenu kan ka ku ko be arresti ju ku arrest an wala ku musku arresti ku so feso bukan pare nyaw a ju ki ju ki hani ju ba yijuk man ku so fe me kamenge fo ku so feso hani jamo man ku jalo ku kurere mati boobu kilo bi 300 prix half 150 na kurek mati manu uma ande angaru kambusa kola awule nendai ku kanja kola umunane jinga manju ulen barja kum julen baga sai mo jinga tenta parce que tenenya iko ken kongen inno nom pour iko ken mani wole ngoli nomen ka kane nyamu bu ka jalo nyu de erek ka supervise me eh. naane ngaruyu tenta lu moo wax si kaalama joola mu ne am na ñi nga xam ne ñoo ñëwoon pour inspect lii nga xam ne ne mooy mbuus si biir marché bi ah, dafa ñëw pour inspect gis na ne mu ngi use mbuus waaye police bi im ku ñoo ñëw pour inspect mbuus yi daf na ne dafa xaar lii nga xam ne ne foofu la jëf jaayam bi mu ne ko balaa ngaa jël di ko xaar eh, di ko saani fi nga xam ne si suuf jël ko nga dajale ko benn place because jaayam la eh, moom foofu lay dundee ba tey loolu la doon wax si kaalama ah, joola ba tey dinañ ko laaj ah, moom mu continuer ah ñoom moo ko rek du ko wucc bare ku gis ku ndewut hani ku ku joni se mati uru jino noon pour ma jikkanu baga sayololi junome njaade sen ku ko kololi moo kaane de jingarudu pop ji pasul eno jaay le le jaw fang parce que nga jaay ne moom ure ñulo ñulo abe ngari ko amure ngar est ce que pon ngonu latu ngonu ke ma an awara awaranga mata me wala anajo ya we yar nono lunga kambuska kon nyaaw jamano ye ye solution nu mange eh, eh, eh, masan kunda wala ku police ak mengu ka men juku randa nu uh, mbus kara kati mbusak wanu mange ku kan ene jopan ku puren wa fanu manje jingol ni pasulo bagase le wanu manje le kambus ku ngol ku rambe bukana di wanu manje po jingol kan ku ngol me nyar glace po pan ku bajan ku jembe kan wa fanu manje do ku jembe kamelam ku banjar ku ne sfire manne man sof man ka glace ku ga ña kurame bu kan kurambe ma ña ana ngontu rek du mom na ne man kat wan ure ñamu ña angar wanu man seno wanu manje wara ngara wara ngarande aro kudo do fanga man de ku seno jaba ñu wara njuro kudo fanjinga jiro Maleye Guène comme li mu doon wax si kaalama mu ne moom borom jaboot la su waree jël li di ko def si buus mbuus wala mu teg ko su demee war a nekk ci kër bi comme borom jaboot la kenen dina ñëw moos keneen moos te bu su yaagee moom profitam bi dina dem wala moom du am lu moo dundalee njabootam te loolu moom mu ne government bi daal dafa war a seet bu baax mu indil leen loo xam ne ne ñoom dinañ ko mun a di jefoo li nga xam ne du utee naa mbuus te li nga xam ne du du ah, lor société bi wala du leen lor ñoom tam ñi nga xam ne tant que jaaykat leen borom jaboot leen loolu la wax si kaalama ah, joola jërëjëf Serigne Babacar yow loo fi def Babacar. xanaa liggéey rek. ah ñëw nañ ñu fekk la fi ah te jamono bi maa ñu ngi dégg ne eh, police ne wala nguur bi aaye na lii di plastic bags lii di plastic nylon yi. Hmm. ah waaw waaw loolu de dégg naa ko moom. dégg la ah, waaw ndax moo ko déggee ah ma ne kon suñu ñëwee comme aaye ñu ñun ñu bàyyi waaye nag li ma la mën a wax mooy liggéey bi mën ta dem sans plastique bi. sa mbuus bi plastic bags yi dafa ànd ak moom. yow loolu naka la la nekk di sonalee jamono bi comme am tànk jaaykat yi marché nga wala léjum si bii marché bi. ah ñun de ci lañ doon takk ndax ku ne jaay mu sew ñu takk ndax ñëpp ñoo mën a jënd jula ak liibar am na ñoo xam mën nañu jënd jula am nañu mën a jënd jula am nañu mën a jënd five am nañu mën a jënd five loolu mooy problème bi ndax tey ni ngay jëndee yow jula am na ñoo xam ne mën mënuñ jënd lool ñoom takk yi five lañ mën tey suñ jëndee takk five subañ di us ko gannaaw subañ ñëwaat jëndaat takk five kon dafa melni li lii ah, ñëwul pour sonal yeen rek dina sonal ñi nga xamne ne ah, sen loxo jotut gannaaw parce que tay yo nga ne su nekké nit ki munta jinda li di a ah, foog mu jina five ak yo te five yo do am fiñ ko def mo nekk plastique bag si kon lolu daf leen nekk di sonal bu baax. waaw dañu affect kay ñi ngi sonal kay ndax tay amna yo yoo si mënoo def ci kayit defé ci kayit bala suba xet bi dem wala mu benen affaire. tooy wala yu mel noonu waaw li ci mel na tamaate boo ko defee ci kayit wala waa ji àgg ci këram mu seey ci kiiwam bi ci peñeem bi eh, porte rek lay xala indi ñu defal ko ko ci lu loolu mu ñëw ñun ko ñun amuñu fuñ def loolu dong la. comme gannaaw bu demee ba wax na ne ah, plastic a ah, tere nañ ko ci biir réew mi depuis buñ commencé di wax ne ne plastic bag tere nañ ko ndax mus nañ laa arrêté si loolu. non ñëw nañ fii ñu cek xool sama place waaye man man leen du may because man comme nee nañ aaye nañ ko bàyyi leen ma bàyyi xam doon ut di ma takk comme léegi nee ñu bàyyi nañ ko ah ma génnee samay takk toog. ah comme ñu ne aaye nañ ko moo tax yow tam nga topp si seen luwaa boobu noonu. waaw waaw ndax kat comme nee nañ la suñ ñëwee suñ ñëwee fekk moom daa moom ñëw yàq sa liggéey balaa ñu yàq se liggéey ko yow bàyyi ko ndax man benn loxo laa man ma dem di wër di ñem ni ñëw loolu la. Ah, Babukar, comme yow jaaykat la jaaykat nga fi biir marché serakunda yan mujjanteel kaddu nga mun a wax ci ah, nguur bi ñi nga xamne wala takader yi ban solution nga bëgg ñu def pour mbirim ah, plastic bags. xana ñu bàyyi yu ndaw yi rek ñu ñu continuer liggéey. yu ndaw yu melni lan. bu ne takke tamate ak kii rek glace ak yoy noonu rek yaa ma xam. ñaar yore laa fi gis xam naa ne bu dul man mi ma ko yuusul mais am na ñoo xam ni ne seen kër yi loolu la ñuy dundee seen bopp seen i njaboot. Ah, Basiru. Basiru yow loo fii def. man may jaay. da ngaa jaay. ah amoon nañ benn xibaar bi gaaw bi nga xam ne ne ñi ne ah, takadar yi wala government bi wax nañ ne ah, nit ñi dañ leen tere jaay mbuus loolu dëgg la wala lan. dëgg la dëgg waa ñëw nañ fii di laajte yëfi mbuus. gars dañ fi ñëw. waa ñëw nañ waa di laajte fi mbuus waaw. waaye mbuus bi daal man lu ma si gisee daal even suñ koy aayee sax jaruñu ay yëpp comme mbuus yëpp at least yu am yi ko uh, yu ndaw yi war nañ bàyyi yooyu noonu status mbuus ndox wala bi wàcca si suuf war nañ ko bàyyi. because liggéey lan nga ne mbuusi lan ndox. waa ak mbuusi lan. status mbuusi ndox yi wàcca si suuf mbuusi ndaw yi dañu war a bàyyi yooyu noonu. mooy yan noonu mun nga koo lim. non anga dañu am tur waaye comme laay ka uh, seen tur ñu bëri xamuñ ko. xanaa jaaykat marché. comme laay waaw ko. mbus mbus dañ ko lay waxee mbus Tyson. waa ak Togo. ak line line. waa bi wàcce si suuf. yaa soo yooyu si lan nga ko dee def si mbuusi mbus si lan. yooyu mun ngaa takkee poobar mun ngaa takkee tamaate mun ngaa tappee eh, mun ngaa takkee ak lan eh, ak moutarda yi sew yi daal because am na yeneen mbuus yeneen yeneen bagage yooyu mun munoo koo def skate waaw. ah dëgg la loolu ban ah, jafe-jafe la la indil comme yow en tant que jaaykat yi ah, li nga lim noonu ay tamaate ay laaj ban naka la la nekk di sonale non dafaa sonal dafaa sonal kay dafaa sonal dafaa affect business bu baax a baax a baax a baax because da ngaa gis na daal yow yooyu noonu ñooy profit bi comme soo takkee takkay ñooy profit bi waaw su doo takka amut. ah comme takkay ngeen dee amee profit. waaw takkay lañ dee gën a am profit because ay yeneen bagages yi daal doo mën a am profit yooyu noonu waaw. Ah, ba tey buñ starté ah, government takkadeer yi nga ne comme nga ne ñëw nañ fi comme ñëw nañ fi ndax expérience loo any arrest ndax lan non déedéet because dégg naa daal ñu ngi arrest nit ñi waaye aagaaguñ fii yow nekkuloo e victime non non non man nekkuma victime waaw dégg naa ñu ngi arrest nit ñi waaye fi ñun fii daal yow gis nga kuñ arrest déedéet gis ma dégg rek waaye gisaaguma de waaw yow ban nga bëggoon nguur bi def jamono bii lan nga si xalaat. comme ban solution la war a def. nguur bi government bi. yu ndaw yi comme like uh, Moussa lan lan comme lan lan la war a comme suñu dund bi léegi lan la war a yàq comme lan lay yàq waaw nañu wax loolu ba pare su ko defee soo ñu xam ndax. xanaa kon ñoom bu ñu ñëwee waxuñ leen ne lii lan la nekk di yàq ak lu mu nekk di defar te yéen tam xanaa laajul leen loolu yéen tamit. non ñun duñ laaj waxuñ loolu waaye ñun muñu leen laajte loolu bi ko sànga yow mënoo koo laajte loolu nguur la te ñu amee doole bi soo mënoo kii nga nga leen laajte yeneen coxon yi xam nga foog ma ne yow daa nguur bi ah, da nga bëgg a nguur bi bàyyi fa mbuus yu ndawa a ndaw yi yi nga xam ne comme mbuusi tamaate laak ak laaj poobar yooyu yooyu nga bëgg a ñu bàyyi fa yeneen mbuus yu mag yi daal ñu génne ko ak mbuusi ndox yi ñu bàyyi ko fa parce que mbuus yooyu noonu mooy yéen seen profit géey nga ngeen kooku di jaaykat ah, bi moom loolu la wax mu ne mbuusi takka yi foofu lañ dee amee ñoom seen profit yi kon jamono bi yow mbuusi profit yooyu noonu mbuus yi nga xam ne ne suñ eh, mooy seen profit suñ ko génne moo nekk yéen doo leen amati profit waaw duñ amati dara mooy léegi maybe soo keneen soo amee beneen solution nga dem def ko rek waaye spéta because euh, liggéey loolu def leen di sonal kon si seen liggéey bi. waaw waaw waaw nañu wax tamit mbuus bi lu ñu lu muy def waa ñu xam. Pajabi Gassama, chairman of uh, Serekunda Market Committee and the same time chairman of the Gambia Market Union. Okay. Comme yow di nga doone njiit wala chairman nga fii Serekunda Market Community uh, lu waral uh, mbootaay bi ak uh, dajaloo bi tey. ah problème mooy comme ah, li ñu baanoon mbuus bi mbuus bi yaakaar nañ ko baan depuis time yi Yaya Jammeh ah, président Barrow ñëw di seen baan leen defoon si mbuus bi ba baan bi dafa dafa dafa jëtan ci ñun trop parce que dafa mel ni daal ñun su dunda bi si mbuus yu ndaw la ñu nekk mbuus yu ndaw yi mooy yii nii comme yu ndee nataalee nii mbuus yu ndaw yi leen di solee seen ay si mom len selé diw yi moy yeen mbous nonu moy mbousi bu weex bi ak mbousi yelo bi mom lañ mom lañ banon ñun yi lañu topa yeneen ci yu maki mom dal bobu kay so li non. soxla ci loolu bariwut noonu ba ñu ngi ñaan ngor mbousu yu ndaw yu bané ni a dafa melni dafa lor askan bi yépp la lor ak ñun suñ dunda bi mo naka ci yi ñu ngi ñaan ngor pour eh, mu def eh, level besam pour mun a bandu yu dee defar si bii nii mu bandi joytu yu am Serekunda fii moom la waa Banjul joytu last time oy nañ ma foofu di same joytu leen def Latrikunda loolu leen def kaama loolu leen di whole Gambia yëpp ñu ngi joytu si mbuus bi léegi an soo xoolee ñun suñ bagage yu jógee bitim réew yëpp si mbuus la dee ñëwee amul bagage bu ñëw fii bu ñëw ñëwul ak mbuus xoolal mbuus yi tuutee nii ak mbuus yu jógee bitim ak bagaas yi foog naa loolu moo gën a bari bii léegi temps mun euh, munun baañ loolu ñu ngi ñaan nguur bi pour mu bàyyi mbuus bi pour mu ak askan mun a yus mbuus bi parce que ñun suñ dunda moo nekk ci yii dafa mel ni su nguur baane yii dafa mel ni dafa taxaw suñu dund bi li ñu war a dundee an baan bi euh, foog naa nguur soo gisee mu ngi baan pour public bi la interest bi moo tax mu baan ba fu mu nekk ni mu ngi loor public bi an foog na nguur bi war na seetaan bu baax lu xam ne mu ngi loor nguur eh, askan bi war na ko moytu mu jës ko bu baax mu am yërmande si baadoole yi ñun yu nekk si marché bi especially yu dee jaay ni they are selling from hand to mouth liñ dee jaayee loolu lañ dee lekka léegi lu ñu jaayee loolu lañ dee lekka fu ñu solee seen bagages yi nga bëgg a pour ñu baan loolu naka lañ jaayee seen bagages yi dafa mel nii daal seen dunda bi nga taxaw pour ñu bañ dunda legi mu ngi ma ngi ñaar nguur bu baax eh, although dañ ko def si loi bi ba loi bi ni da nga def loi bi pour niti la so gisee mu ngi lor niti loi bobu da nga ko da nga wara gene ci si niti pour ñu mëna am suñ suñ jàmm ñun loolu la ñaan nguur bi eh, ñu def ko forcer ñu ngi ñaan ba suñu démé dem dem dem dem ba ñu gis ne dal amul benen option leg, ah, foog na di best option is dañ tok suñ kër yi duñ yaay loolu lañ bëgg a def balaa bala balaa ñu àgg ci loolu ñu ngi jaay ñaan nguur yi mbuus bi waxuñu mbuus bu mag bi ba mbuus yu ndaw yu xam ne ñu suñ dunda foofu lañ nekk mu dimbal ñu bàyyi mbuus bu ndaw bi suñ suñ nit yi mun a am suñ jàmba lu ñu jooy di naa dëkk bi yëpp man fu ma waxee nii depuis Basse ñu ngi ma xool Farafenni ñu ngi ma xool yëpp ñu ngi onda di same umbrella dafa mel ni market community si Gambie yëpp a nekk benn forum be benn wax bi benn wax bi man bu ma waxee ne man maay chairman of the Gambia Market Union si tuur yëpp an bind naa ci NEA wax naa ci ñoom bind naa ci ñoom depuis lundi pour ñu ñëw waxtaan ak ñoom ba ba tey gis ma dégguma benn reply ci ñoom dama ñaan ci ñoom ñu ñu toog ak ñoom waxtaan an suñu waxtaan yëpp ñii la mbusuñ ndaw ñu bàyyil si eh, suñ eh, mbootaay askan yi li ñu mën a jaay loolu laa bëgg a wax. baax na jërëjëf kooku di Chiamani euh, Market. Euh, kooku di Chiamani Market yi Gambie yëpp mu ne moom moo nekk head bi mu ne ñoom yëpp a nekk si benn forum bi pour because of euh, ban. here indi the Gambia daf leen nekk di roor comme ñoom en tant que jaaykat leen borom jaboot leen ah gis ngeen ñoom yëpp ñoo fi nekk nii dajaloo tey du góor du jigéen du ah, ndaw yi nga xam ne ñu ngi jaay fii ñëpp ñi nga xam ne ne waxambaane leen ñu ngi daan seen doole ah, pour suturoo seen bopp am na ki nga xam interview naa ko mu ne lii moo dee tax sax ñoom ñuy xaru di bugg a tukki ah, daan seen doole pour wala seen waajur yi kontaan suñu leen di baan moom dina jaay noonu mooy tax profit am foofu a dee jóg. ah comme niñ leen ko di faral di waxee rek ni ma ko gisee soo la comme tey dañ doxantu ñëw marché Serekunda pour waxtaan ah, mbiri ah, plastic bags yi nga xam ne dañ ko baan ah, jamono bi si réewi Gambia defoon nañ ko at yu si gannaaw ex président bi nga xam ne right now mu ngi exil président Yaya Jammeh bi nga xam ne moom tam tere woon na ko fi waaye gisoon ne am na ñoo xam ne bindoon nañ ne lii di leetar fekk ko ñu ne ñoom mbuus yi li nga xam ne ne jaaykati ay si la woon bind nañ lii di xam ne ñu ne ñoom ñaan nañ ko ñu bàyyi ñoom ñuy jaay lii di ice parce que foofu lañ dee jënewuñ wala di suturoo ñoom comme en tant que jaboot leen ah, nguuri baro bi tamit ah, ñu waat ne ñoom tam ñu ne baan neen lii di ah, plastique bag si biir te gis nañ ne askan bi loolu mu ngi leen di sona ñu ñëw fekk fii dajaloo bi wala mbooloo bi ngi ne loolu ngeen bugg a waxtaane pour ñaan nguur bi pour mu dimbale leen ne lii di plastique bag because daf lañ nekk di sonal comme di en tant que jaaykat ñu génnoon nag pour waxtaan ak yéen ñoo nañ tam ñu fekk fii président community ñu ne secrétaire ak mbootaay bi mu gis nii jigéen yi ñi gis nii yëpp ah, foofu lañ nekk si marché ah, marché market Serekunda market community bi ñoom yëpp foofu lañ bokk ñu def dajaloo bi mbooloo bi pour waxtaan ak nguur bi ñu seet naka la ñoo mun a dimbalee si plastique bag ban bi si réewi Gambia ah, ba tey dinañ waxtaan ak gars ñoom ñu wax ñu ñoom lan lañ gisee loolu ak loolu naka la leen nekk di yaaxalee si jamono bi en tant que jaaykat leen en tant que borom jaboot leen ñoom foofu la ñoo sutural seen boppa am lii Thank you. seen dunda yéen a ngi gis lii di lii lañ génnee pour démontrer lii di mbuus yi nga xam ne dañ ko dee buddi jëfoo si biir marché bi di si def seen items si gis ngeen fi lii di tamaate gis nañ fi lii di granot bi nga xam ne gerte bi nga xam ne dañ ko wol gis nañ fi mbuusi ndox gis nañ fi diwlin gis nañ fi sëpa sëpa gis nañ fi kanja gis nañ fi da xawma lii la gis nañ fi tamit tamaate gis nañ fi tam mutaada gis nañ fi gali lii di laaj gis nañ fi tamit granot dege biñ wool Ah, gis ngeen ko gis ngeen fi tam kayit yi tam nañ leen bay ñu wax ñu lan mo waral li gaay ñu tek ko fi lu tax ñu bëgg ko démontrer pour nit ñi gis ko lan lañ bëgg jangal nit ñi ci li ba ah, dinañ laaj ñom sen market community President be, Catherine noo tuda ah, maa ngi tuda serina Kebe ma nek secretary general Serekunda market committee and the third secretary of the Gambia market union um, waxtaan bi ma fekk fi refelu na ko trop comme ni suma Euh, ñu ngi bokk ñun ñëpp di joytu problème bii euh, ndik euh, ñun dañ seelu ne plastique baa yi ñu aay government dafa mel nii dañoo xeex néew doole yi man suma gis-gis li tax ma wax loolu mooy tey ñiy oda li ëpp li ñëw ici bagage yi nga xam ne am doole bagage yëpp dafa am mbuus am na yenn plastique yoo xam ne yëpp yu nga xam ñu ngi ko jëfandikoo yëpp plastique baag la kon soo waxee plastique foog naa am lu lu su fekkee ñoom dañoo baan dañ war a def ban ne bëgguñ plastique si biir réew mi su ko defee duñ bàyyi kenn li nga soo waxee ne da nga aaye dara da nga war a fatta bunta bi mu war a ñëwee poot bi nga xam ne nii foofu la plastique di jaar foofu la gars yi fatta ne bu kenn isi plastique Be waxtu boo xam ne lu yàgg la about six months or eight months fekk yaa ngi sensitise ñi jaay ñi jëfatoo bagage yi ñi jëfatoo mbuus yi yaa ngi leen di leen waxal ñoom buñ toogee gisatuñ ko duñ ko jënda waaye su fekkee yow ñi nga xam ne ñoom ñooy borom doole ñooy orda di am lëkkaloo ak waa niti nguur gi ñi am doole ñu leen a bàyyi ñuy dugal mbuus gi ba pare ñu ndaw ñi nga xam ne amuñ doole ngeen duñ ko jëfandikoo loolu dafa ñaaw te ah, lii nekku di first time xewoon na comme ni ñu ko waxee rek si time yi Yaya Jammeh waaye gisoon nañ ah, ah, am luwaay comme police yi naka lañ doon doxalee ak ñi njee jàppa si mbuus yi ñu ñaawlu ko trop yóbbu la li luwaa bi wax sax duñ ko def waaye dina am lu ñoo jël si yow ñu bàyyi la. lu mel ni naka dañoo jël si yow lu mel ni naka. lu mel ni ñu jël si yow xaalis nga jox leen ko ñu bàyyi la nga dem te loolu normalut loolu daf doon am apun fii te loolu lu nekk daf dee isi nit ñi ñu mer isi leneen ak leneen te ñun as a market committee euh, lii meeting bi audience to us dañ toog rek ñu wax ñu ko yëguñ ko waaye dëgg-dëgg suñu responsabilité la. time bu ñuy waa marché soleil rek ñu jóg lépp loo xam ne ñu ngi koy joytu ñu jàppale leen ci euh, am na loi buñ ne nañ defar luwaa ñëpp a bu am xaaj ak seen na si ñëpp em bul seet ki am doole ak ki amul doole waaye mbuus yi ñu aay nii wax dëgg la ñi léemaan si ñoo ko am ñi ñëw doole yi ñoo ko jëfandoo ñi am doole duñ jëfandoo mbuus yi te ñu leen naa bàyyi ñu ngi dugal mbuus yi si biir dama si conteneur yi plastique baa yu bari ñu ngi ñëw especially ñi ñi ore ñi oré yenen uh, item ship dafa and ak mbuss te yu duñ len ay so so buggee ay ñi ni to mi dal da baaxoon na nga def proper sensation at least eight months nga ci waxtaan ak nit ñi ba paré na fekk ah, nga block nak port bi nga xamné ni nii la affaire yi jaaré ñom suñ ko gisu duñ ko jënda waye comme mu ngee dugg ci dafa ñu jënd ko su ko defee dafa nekk sumagul ci seen biir at the end of the day lu mo jural ni ci moy plastique ba bi nga doon jëndé ten dollars dang ko jëndé 50 dollars because dañoo xam ne amatul wala yaa ngi sàcc di ko liggéey dafa mel ni drogue si seen biir ñoom kon dafa mel ni euh, soo aayee lii nga bàyyi ñi nga xam ne ñoo am doole ñu ngi ko dugal dafa mujjee jur yi fi drogue ndig ñi koy soxla dañ koy soxla suñ ko waroon a jëndee ten fifty lañ ko jëndee loolu correct I think loolu euh, lu government war a bàyyi xel la euh, dëgg li ngeen def nii nag am na solo lool nit ñi suñ nekkee si jafe-jafeñ ngeen génn a laaj li ñi li nga xam ne loolu la ñuy joytu ñu eggale ko si média yi loolu moom euh, rafetlu nañ ko trop euh, di leen wax jërë ngeen jëf si seen. Euh, jërëjëf comme si sa kaddu yi nga wax noonu comme moom li moo wax noonu nguur bi du ñoom la war a tere fu mu war a tere moo nekk ci buntu bi parce que soo waree tere ñi nga xam ne ne ñoom foofu lañ koy jëfoo comme higher the demand the cost it will be it li nga wax noonu am na solo trop nañ ñu seet naka la ñoo sensitiser li nga xam ne moo nekk uh, the ban of plastic bag blacks here in the Gambia wax nañ la moo tax loolu ñu ngi koo def ndax dafa am lu rolaange bu fa nekk ndax lan wax nañ leen ko. waaw uh, anyway according to the information lu amoon dañ dee wane ne plastic bag yi uh, gannaaw boo ko jëfandoo soo ko uh, dañ dee bari ba pare daf dee mën am at yu bari si biir suuf sax du yaaxu wala du nëb wala whatsoever ba pare dafa xala isi climate changes bu mu dee isi fii nii comme ni ñu ko dee lakkeeg yu noonu daf dee xala isi jafe-jafe si climate bi uh, according to the sciences ñoom di research uh, for naa these are things yoo xam ne nii ñoom loolu lañ wax ne moo ko isi xëy na nag am na ñu gën a bëree bëri waaye to be frank enough with you uh, tooguma ak ñoom wala di comité tooguma ak ñoom ñu wax leen lii ak lii bu fekkoon ne ñoom bala ñu doon def lii di dugg si bii marché yi liaison nañ ak di market committees wax leen li tax ñu bëgg a aay lii wax ñu lan mooy reason bi dañ ñun su ñoom bala ñoo ñëw ñun ñooy waxtaan ak suñu waa marché waaye nekkuñ fa te government euh, authorities yi ñoom ñoo jox di mandate of the councils ne marché boo xam ne nii mu sa gox na ngeen fa defar comité comité boo xam ne mooy jaar diggante vendors yi ak ak ak councils yi so xamee ñoom dañ waroon a jaar through council council ñëw jaar through di market committee dem si vendors yi dafa mel ni ñoom jaaruñ si benn euh, market communities wala any councils pour ñu mun a synthesize yi nga xam ne yéen a fi nekk si market community bi euh, di jàppale li nga xam ne moo nekk vendors yi wala jaaykati si biir euh, dëkk bi dañ jékki-jékki rek jël seen luwaa ñëw ak yéen ñu ne leen def leen nii ñu bëgg yéen tam ngeen toppa si loolu te yéen gis fiil ngeen ne loolu def leen di lor. loolu dëgg la ndax jaar nañ council wala jaaruñ council to be frank enough with you rek lañ mujjee jigee council Euh, dimit ak mai bi waaye wax dëgg la waxul ñu affaire yi mbuus yi nii so pour ma euh, wax ne dëgg-dëgg ne jaaruñ council loolu su ma ko waxee naa mistake waaye suñ comité bi jaaruñ fi ñëwuñ si marché bi tam wax leen ne lii ak lii la ñoo def te comme ni ko président waxee ñun bi ñu ko yëgee moom ci la assign di secretary ne na binda National Environment Agency leeta wan ko ne ko affaire yi mbuus yi ngeen a aaye ñun bëgg nañoo xam lan mooy régime bi ak bëgg nañ ci ndimbal because ñiñ ko aaye les mans lii moom la ñuy jëfandikoo soo leen xëy xëy rek aay leen ko yàlla naa lor waa digga digga ndax government def nañ collaboration with council loolu moom suma xelaat suma xam-xam tuuti na ci waaye with di market committee and the vendors loolu amut loolu is not happening um, Ah, ma bëgg laa laajaat ndax yow mus nga witness ki nga xam ne ne dañ ko arrest comme ñu ngi wax ne ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen di arrest ah, si biir ah, marché yi am na koo xam ne ne interview nañ ko mu ne moom day ñëw sax jël ay tansam yi ubbi ko xar ko tuur ko noonu si suuf because of mu ngi mu ngi ko omba ak lifin takka ak mbuus mu ne ko balaa ngeen koo def nii teg leen ko eh, fi nga xam ne is the safest place bi nga xam ne suma pare mun naa ko use mu ne moom tam wax na loolu yow ndax mus nga jis kuñ arrest wala ki nga xam ne is a waaw eh, loolu tam uh, eh, diga musaguma gis koo xam ne arrêté nañ ko waaye xam nga marché olof njaay daf dee wane ku dee yaa tagee ku dee marché yaa tagee sa boppa bari na ñu nga ni problem nii problème bu ñu am rek ñun dañ ko dee yëg si jàpp ñëpp ñun yëg nañ ne jàpp nañ leen xëy na fekkewuñ bi leen naa jàpp nag waaye lañ ci de ñëw nañ wax ñu ne fii ak fii dañ jaar ak ñoom kon si kaw loolu mun nañoo téye wala mun nañoo japa ne loolu lu xam Euh, risin la boo xam ne ñun mun nañoo téye ne suñ jaaykat yi euh, ñu ngi leenaa sonal si lii waaye dëgg dëgg euh, pour man ma ne gis naa kuñ téye loolu moom amut gisaguma kenn koo xam ne téye nañ ci waaye xam naa ne loolu mu ngi happen because ñi ñëw téye ñu ngi leen a dégg koy wax. Masonic Money Transfer koku ngarola wasume desela yema keuye yonami au kupali dibu kana koli pankungwani kuboni sikoras kapurum kalulumai Europe USA Canada di Switzerland banjale du cham haniwaf nye nafa woro di service nu manja ye fange me wakene ye fange me jake de bunye sikoras di sukete Gambia au bachamut haniwaf eselawiye woto kupali ndi buccaneer tamukudewum di bacamam nanosan konne bonci koreas kapurum europe usa canada wala switzerland di sela yeme kew ye loken ndi google play store wala apple store jat munu download supersonics money transfer app ye munu nafa woro di e boñe si koreas kapurum supersonics disofor wammi wolola di supersonics money transfer e sela yeme key e sunsume ban